c'est la référence. mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu yéen ñi safoo di ànd ak Alfayda FM kaddu gi di bàyyi ko ci moobul Cheikh Imam Assane Cissé eh, fii ci dëkk bu sell bii di Medina Baye dal leen ak jàmm ma jukki leen li gën a fës ci bopp xibaar yi jëwriñ ji nga xam ne moom la ñu dénk naka wàllum mbay mi dafa daal di dëgmalub mbir mu di dakkal naka gerte gi nga xamante ne mooy génn di dem ca biti réew eh, tax naka ba kuréelu COPEGA naka amal ca ndaje eh, di ko naqarlu yi tamit naka waaye di ko dakkal di wax ne daal ànduñu ci jëwriñ ji daal jéego yi nga xamante ne bii bëgg na koo jël ndax bés bu daal baykat yi daañu sonn te duñu amati fa ñu jaayee seen gerte googule seen ndaje ba daañ ca dikk ci biir xibaar yi Sénégal nag jublu si bés mu di fukki fan ak juróom-ñaar ci weerum novembre ci élection tànneefu député yi ñi nga xam ne nag ñoo di parti politique yi coalition yi ku nekk nag yaa ngay amal sab yëngatu mu di campagne gi nga xamante ne bii ñoom ñoo fayte ci nguur geek seen parti bi la di Pastef fii ci diwaan bu Kaolack amal nañ mooy tête de liste coalition takku wàllu Sénégal ci diwaan bu Kaolack moom itamit nag mu ngay amal ab campagne am waaye ñi nga xamante itam nag ñoo di sàmm sa kàddu ñoom seen campagne gi dafa ànd ak lay ñuul mu di nag Bougane Gueye Dany mi nga xam ne ca ñoom la bokk te dañu koo teg loxo ni gi tey jii sax nag dañu koy atte foofulee ca bërëbu attekaay ba ca Tambacounda daañ ca dikk ci biir xibaar yi buñ ca noppee daañ ca toftal xibaar bi ci réew ak a fàtte lu tuuti ma dugg ak yéen ci yaatal weeg faram fàccee bi gannaaw bàkk bi lay doon. xibaar yi ak Mariama Ba. Eh, bàkk ba jib na ba noppi Alfayda FM kàddu gi di bàyyi bàyyikoo ci dëkk bu sell bii di mii dina bàyyi eh, juróom ñeen fukk yu toftal benn ngeen koy teewloo ci diwaan bu Kaolack nangaan Sénégal ak li ko wër eh, tey nag di àllarba fanweeri fan ci weerum octobre atum ñaari junne ak ñaar fukk ak ñeent njàppal ko du sekk keneme la ñu seen ci machine bi na ko junjee woon ca bopp ba nun laay duggee ci yàttal week faram fàcce bi Bara Cissé nag jiite woon station Total ba ca diwaan bu Touba ñu faatoon ko nag fukki fan ak benn ci weerum décembre atum ñaari junne ak ñaar ñett ñaan ñi nga xam ne nag ñoom nañu tegoon loxo ca Fatou Bara Cissé googule ñoom daal laalee nañu ca seen i ay mbokk nag ñoo génn di naqarlu mbir moomulee ndax nee nañu ba ñu leen tegee loxo ba léegi daal defu ñu benn gëstu ngir xool lan moo undu mbir ma wala sax nag ngir déglu leen Touba Mamadou Moustapha Mbaye la ñu fay fekk fukki fan ak benn ci weeru décembre ci atum 2023 la ñu ko moom Bara Cissé jiite woon station Total Eldasi fii ci diwaanu Touba boobaak léegi ñu tegoon loxo Matar Gueye ak Moussa Bopp ñu nekk ci mag bu Jurbel ay ne ñoom la ñu teg loxo daal di gis ne mbir mi dafa yàgg te dara soppeewu ci. boobu ba léegi nag wax dëgg yàlla amuñu ci am la fi fekk ñu monté léegi nag na ci ndax damaa yaakaar ne meurtre bu amee yaakaar naa ñi ko yor wàllum enquête ma dañoo war a def ñaari piste ba ñett ñett benn mooy d'accord ñoom ay pompis lañ fi lañ nekkoon ñoom monté woon waaye pompis jëluñu ko pour muy garder pompis dañ ko jël pour mu concentré wu ci ay pompam ndax benn dërëm bu ko manqué balaa xëy suba ñibbi da koy fay kon kooku jëluñu ko pour muy garder gérant bi beneen mooy diggante fi ñu ko reyee ak pompe yi fi mu nekk am na distance bu xaw a gudd boo xam ne lu ne mën na fay xew te doo ko yëg beneen mooy heure bi ñu ko def dafa nekk heure boo xam ne station bi day mouvementé maanaam nit ñi dañuy doo ko wàcc dugg bee génn ñoom ñii di moo moom Bara si am na ñeneen ñu mu doon jëflanteel rawati waa Total te gis nañu ne ñooñee amul kenn si ñoom ku nga xam ne jot nañ la déglu wala sax ñu dalee inculpé Mamadou Moustapha Mbaye Touba Euh, bu ñu bàyyeekoo ca xibaar boobu lee nag dañuy dem ca beneen xibaar mu jëm nag ci COPEGA nag woote woon ndaje eh, ci nag li jëwriñ ji nga xam ne moom la ñu dénk wàllum mbay mi fas yéene def nag mu di at dëgmal ko mu jëm nag ci dakkal gerte gi nga xamante ni bii day génn ca biti réew ñoom nag mbootaay boobu lee nag ànduñu ca benn yoon te itam nag ñu ngi sàkku ci jëwriñ ji nag ngir mu dellu gannaaw ca mbir moomu moomule ndax baaxul ci baykat yi Habib Thiam mooy président COPEGA la ñu ciy teewlu ci micro ba Badara Diop di fàttali ne tey dañ fi oote woon ci benn réunion boo xam ne bu yàkkamti la wax dëgg yàlla pour information e aussi pour euh, communiquer ci li nga xam ne aussi ñëpp xam nañ ko mooy ministre de l'agriculture ci dogal bi mu bëgg a jël nee na dafa bëgg a jël dogal pour arrêter li nga xam ne aussi mooy gert gi génn bitim réew ci loolu lañu doon artu pour xamal ko fàttali ko gerte gi fi mu jógee ak luñ ci dox ak luñ ci wax ak liñ ci jëf yëpp ba gerte gi toll fii ba ñëpp xemam di ko bay booy di ci ut dara pour fàttali ko rek nañ fàttali ko moom tamit amoon na fii lu ñoo ay bon impayé mooy dangay ngay jaay sa gerte joxe ko ñu jox la kayit kenn du la fay nga bay sa gerte xamoo foo koy jaayee am jaaxle trop kenn xamul foo jëm loolu yëpp xew na fi nga bay sa gerte aussi mu nekk loo xam ne dafay nekk loraange ci yow parce que doo xam noo koy defee dem na ci président Abdoulaye Wade dem na ba ne nañ bàyyi bay gerte dem di bay tabanaane parce que gerte sonaloon na ko loolu yëpp xew na fi waaye ñun dañoo ñëw ak li nga xam ne aussi mooy xew na fi mooy waxtu nga xamee ne commercialisation tàmbali na gouvernement bi danaan jël fukk ba fukk ak juróomi milliards di ko jox huiliers yi pour di leen neexal pour ñu mën a jënd gerte gi loolu yëpp xew na fi kon loolu su fekkee loolu yëpp xew na fi ñun ñu ñëw depuis 2010 le 15 janvier 2010 Abdoulaye Wade signé loo xam ne benn décret këyit woo xam ne pour ne libéraliser naa gerte képp ko bëgg jënd gerte dama nga jënd ko ak noo ko mënti jëndee jënd ko ku ko bëgg génnee réew mi nga génnee ko réew mi yaakaar naa ne loolu date bu historique la ci lañ futteeku ñun en tant que sénégalais dugg ci àll bi investir di liggéey ba béykat yi mën a ànd ak ñun gis seen bopp ci ñun li ñuy def te loolu boobu ba léegi dégg doo bon impay dégg doo fi ne maa ngi bëgg jaay sama gerte amul foo ko jaayee dégg doo fi dem naa yóbbu naa gerte door nañ ma abattement deux tonnes ak trois tonnes loolu yëpp déggatoo ko fi ñun ñooy futteeku dem ci àll bi fa fa ñuy béyee dëkk ak béykat yi nekk ak béykat yi di jënd ak seen gerte ci anam bi nga xam ne aussi anam bu rafet la te jël béykat aussi mu koy xolli ak doomam ñu koy fay ba yëb gerte mu ngay def ci ay saako di ko chargé ñu koy fay kon loolu yëpp kon kuy ñëw di taxaw ne ñun dañuy jël gerte gi ñu ci bëri lu ñu yaakaar loolu la gerte gi la jël rek ca tool ba rek def ko ci ay conteneur bu dem fekk loolu yëpp amul gerte nag dootul génn Sénégal doon nag loo xamante ni bii jafe-jafe lay indi ci baykat yi ndax nag du ñu gisati seen bopp ci li nga xam ne moom la ñuy bay te itam nag bu ñu bayee ba noppi fan la ñuy jaayati eh, seen gerte googule bu ñu sukkandikoo nag ci woylu kàddu Habib Thiam Alioune Badara Diop moo ko taataan. taxaw ne gerte dootul génn Sénégal musiba la te musiba boobu kenn xamul nag fu muy yem da nga ay yaa ngi oote loo xam ne di xam taal woo xam ne bés bu tàkk doo ci mucc te loolu musiba bu rëy la maanaam mooy cest à gerte gi nga xam ne béykat bi ñor la na ko mu war koo mun a jaay prix bi nga xam ne si prix bu baax la mooy su fekkee tënk nga suñuy loxo ñun mooy ki nga xam ne ñoo war a jënd gerte muy ñun ak huiliers ak semenciers yi suñ dajee ci terrain bi ku ci nekk dina yokk sa njëkk pour mun a jot ci gerte baykat bi loolu su fekkee ne loolu amul yokk njëg boobu du am saa à dire kenn moo fi nekk di jënd kooku dafa taxaw pour lor baykat bi kon li fi nekkoon mooy lan mooy ñëpp dajaloo ci terrain bi dajaloo ci baykat bi du xëccoo gerteem tant que taxawuñ di xëccoo gerte baykat ngir baykat du boppam ci li muy bay kon loolu su fekkee dañ ko fay bëgg dindi mooy baykat bi mooy naan ñaata

saañee du reer te loolu musiba la ci réew te li koy andi nag mooy arrêté exportation yi tënkuñu ne gerte gi du fi génn loolu ñu ngi koy appelé à la raison mu dellu ci mu jógee foofu fu mu taxaw nga xam ne loolu taxawee ñëw taxaw ci benn journal ne dafay arrêté te waxu ci ak ñun te amuñ ci benn xalaat ça veut dire que booy dafa nekk loo xam ne dafa tëdd ci bureau rek di gént di wax te réew ñun ñoo ko bokk réew mi ku fi nekk tamit dañ la koo dénk rek bés dana ñëw danañ ko jox sa loxo jox ko keneen nañ jàpp nañ ko jëlee ci ay loxo ñoom ñu jot ko jëlee seen loxo keneen jot ci kon réew ñu ñoo ko bokk nañ ko ñu waxtaanee ko ñu bëgg mooy ñu toog ñu waxtaanee ko ñun jaayuñ doole kenn xeexuñoo ko kenn waaye ci réew mi lañ bokk président wax na ko barki démb ñu dem ca diwaana bu Kolda nag lu jëm ci suuxeel nag gàncax gi ak àllam gi nag doon lu ñu war di moytandiku tax nag ba kuréelu ba Casa Bio lëkkaloo ak doomu Kolda ya fayte eh, ca biti réew ngir nag ñu sàmm alamu ba Kolda ba mën cee jëfandiku diwaan bu Kolda Mamadou Bilo Diallo lañ cay teewlu. bés bu yàlla sàkk ñuy gis ay coppite jëm ci wàllu jaww ji li ko waral bokk na ci jëfunu doomu aadama ci nekkinom buñ ci moytuwul nag gàncax gi ak lépp Port ak Casabio ak ñu mu lëkkalool dëkk ci Italie dinañu indi ay pexe ngir ñu mën woon moytu loole Boubacar Seydi moo yor seen kaddu. ñu gis ne am nañ problème mu changement climatique am am nañ problème mu suuf yi nga xam ne chaque année ñu koy perdre maintenant mënoo def diagnostic ñëw xool fan la jógee donc mooy indi tey ñu ñëw ci Kolda ñëw ci pont bi xool xool suuf li tax muy tar yëpp kañ la commencé depuis les années quatre vingt quatre vingt dix donc lan mooy problème bi lan mooy. Youssouf li ko ëpp moo ngi ñuy fàttali naataange jamono yooyu weesu. autrefois ce fleuve était le poumon nourricier du département et de la commune de Kolda. les chalands venaient de caravanes de Dakar de Ziguinchor avec des marchandises et repartaient avec des, semences des graines d'arachide. ce fleuve était notre orgueil. ce fleuve était notre espoir. c'est ce fleuve qui nourrissait Kolda. Pape Ousseynou Ly jiital CRZ bu Kolda ànd na ci doxalin bi. rëy la parce que ISRA aussi nekkul institut bu tëju ah, rek ñun ñooy liggéeyal suñu bopp dañ bëgg a ouvrir on euh, nit ki lu mu am ku lay jàppale lu mu am looy lëkkaloo nit boo amee kañ ku ñëw aussi loolu yokkute la. Abdou Salam Diallo directeur cabinet maire bu Kolda mi yor kaddu maire yi nga xam ne ni seeni i gox jege nañu texu Casamance ak jéeg yi moom it tamit kaddoom mi benn la. la bi ñu am fii Kolda ci ay jamono yu weesu vraiment mbégte woon ci ñun daal euh, parce que beaucoup de d' activités se passaient au niveau de ce mu doon vraiment lu baax ci Kolda. li nu mel nguur gi war na koo gunge ngir gën a jàppandal dundu askan wi. Euh, ci wàllub nguur googule sax nag projet yi nga xamante ne bi taxawal na ko ngir nag Sénégal gën a mën a suqaliku euh, tax na nag ba chambre de commerce yi nga xam ne ñoom ñoo fayte euh, ca Ziguinchor Kolda ba jàpp Sédhiou nag desuñu ca gannaaw taxawal nañ seenu bopp nag ci koppar gu takku ngir mën a suqaliku bokk yi tamit nag ñuy suqali réew mi Pape Kadiali Badji la ñu cay teewlu. gannaaw bi nguur gu bees gi génne lu ñu duppee référentiel mooy maanaam yoon ba ñuy jublu ngir réew mi di suqaliku de commerce yi di dañu des gannaaw loolu nag ngir ñu gën a am doole Abdoulaye Sow mooy njiit la. Kolda Sédhiou. ci fànn boobee Kolda Sédhiou ak Ziguinchor dañu dajaloo booloo ci pôle bi te am nañu juróom fukki milliards ngir sukkaliku. de l'axe Kolda suñu sukkandiku njiit union chambre de commerce yi muy ne dinañu jàppale waaye it ñii di opérateur économique yi. on va quand même. dañoo toog waxtaan weccante xalaat ak opérateur yi xool ban yoon lañuy jël. ngir am koom Abdoulaye Sow di wone ni kii opérateur économique yi dinañu jublu ci wàllum industrialisation réew mi projet ba ñuy waxtaane ak ministre commerce mooy jël fanweeri hectare ci suuf ngir def ca ay infrastructure gannaaw doxalin bu bees ak pas-pas bu bees chambre de commerce yi bëgg doon ay kuréel wala bànqaas fi nguur gi mën a fàttaliku ngir réew mi gën naat Eh, ñu del si fii ci diwaan bu Kaolack nangaa nag wàllum mbëkk mi dem dellu si nag amul ku jël nag barsa gile yegg rek wala nga dem sa barsàq looloo waa tax nag ñu ko doon wane eh, ci anamub théâtre ñu tuddee ko nag amala migrant de retour eh, ñu ko doon amalee foofu li nga xam ne moo di ca espace Kër Kabila ca alliance française bu Kaolack ànd ci ak artist comédien bu Kaolack bile di faatu Diop yaatal week Ndeye Fatou Cissé ay riiru vague rek la public bi di dégg ay minutes yu sakkan na euh, laata ab ndaw lu jigéen di fël ci seen bekk ab bateau boo xam ne nag maa ngi cay def kàttanam euh, Sénégal la bëgg mu delloosi ko. waa loolu nag mooy lu bizarre ci pièce bi parce que mosaguma gis que ne damaa dellu si si gaal donc ñun dañoo bëgg a wane ne loolu mi ngi firnde ni dem dellu si mën naa bañ a am ndax ñi dee ñëpp dem nañ waaye dellu amala migrante de retour di turu de théâtre bi nga xam ne kon public bi ma ngi ko doon seetaan samedi ca espace kër Kabila. en tant que jigéen jëloo ko yoonu gaal gi ci yoon bi dund na fa dund bu métti léegi nag bi mu demee ba àgg xam na ne moom daal mënu réussir foofu ak mentalité bi mu am tax buggul woon a dem mu décidé ne day ñibbisi léegi ñibbisi boobu nag la waajur yi mënul woon a accepté loolu lañ doon relaté waat fii pour wane ne dañu jàppale xale yi ndaxte bu dul dara sax seen dund la ñu leen di déglu di leen accompagner. Amala pièce ba demoon ba final atum 2021 ci prix RFI euh, théâtre dem nañ ci région yu bari mais ñëwul woon Kaolack fii ville pour nit ñi mën koo nekk ngir ñaawloo ko naqarlu faatuk bakkan yeneen i njeexital yu métti yi mbëkk mi di wéy euh, di jur ci réew mi amala moom di am ndaw lu jël décision ne day dellusi ci réew mi ngir tabax fi nag euh, lii di ëllëgëm euh. ndax doole bi nga am gëm-gëm gi nga am ba ne boo demee tekk war nga koo mën a am yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM 90 point 1 Euh, dugg nañ ca ñaareelu xaaju xibaar yi ñu koy teewloo fépp ci diwaan bu Sine Saalum Bawol ba jàpp waalo ñu dem ca beneen upp xibaar tolluwaayu réewum Sénégal réewum Sénégal nag fas yéene sóobu euh, ci élection tànneefu député yi fukki fan ak juróom-ñaar ci weerum novembre atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñeent gille euh, bu ñu sukkandikoo nag ci DGE mi nga xamante ne bi ñoom ñoo yor wàllum élection yi ci Sénégal lu toll nag ci ñeen fukk ak benn nag ñoo nar dem ca jongante yooyule ci ay parti politique ak ay coalition yaatal week Alimba Badara Diop. élection législative 2024 ñu fas yéene ko amal nag fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre atum 2024 ginnaaw bi nga xamante ni nag kuréel gi di DGE di direction générale des élections moom mi nga xam moo jot a fësal luy tolloog ñeent fukk ak benn candidature yoo xamante ni jot nañ ko validé ci ñeent fukk ak juróom-ñeent yoo xamante ni jot nañu déposé élection yi ni nag ñu fas ko amal ci fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre ginnaaw ci loolu na leen xamle ak yoo xamante ni bokk ci jogante bi bokk ci loo xamante ni gën caa fës nag ay coalition alternative ak acteurs de terrain la marche des territoires ànd nawle doon nag kuréel boo xamante ni nag de xeex ak li nga wàllum taxawaay askan bi waan tamit wàllu autonomisation te ko ko jiite nag di Maguette Sène ak ñoñam coalition sàmm sa kàddu doon formation boo xamante ni nag bëri na lool ay nataanga yoo xamante ni ñu ci bokk di xeex ak li nga xamante ni mu wàllum baykat ak ñi nga xam ne càmmkat yi lii na bokk na ci priorité yi nga xamante ni nag coalition bi mel jot na ko fësal gën a jëmbal nga xam wàllum mbay mi Sénégal coalition pôle alternatif kiiraay yi ànd naataange doon ab coalition boo xamante ni nag de rejeté lépp loo xamante di jëm ci wàllum politique boo xamante ni nag bu waroog li nga xam di askan bi seen bëgg-bëgg la ñoom ñi la nag gën a jëmmal li nga xam taxawaayu ndaw ñi ci fànn yépp coalition union citoyenne bënt bi doon formation boo xamante ni nag di jëmmal baax a baax li nga xamante ni wàllum culture bi nga xamante ni suñu réew di Sénégal dañuy Sénégal PEPS coalition bi na mel nag gën a jege lool acteurs yi nga xam ne nga ci wàllum koom-koom bi nekk ci gox-goxaat yi wante tamit jéem a xool nañ mën a def ba am réconciliation ak askanu Sénégal jëmmal li nga xam wàllum infrastructure ci fànn yëpp moo xam tamit ci wàllum développement grand rassemblement des artisans du Sénégal doon kuréel goo xamante ne dafa dajale way liggéeykat yi ñoo xam artisans yi ak ñi nga xamante ni ñoo yëngatu ci yeneen secteurs yi ni ñoo nekk fii suñu réew du Sénégal lépp na bokk na ci nag jëm a baax baax li nga xamante ni mu wàllum koom-koom bi ci élection législatives ci waajtaayu élection yooyu lii sax naka campagne ga nga xamante ne bii moom mooy waajtaay ga naka ñu nga ko cay amal euh, parti politique bu ne naka yaa ngay sóobu ca diwaan naka bu njaafaat ñi nga xamante ne bii ñoo di parti bi naka di Pastef nekk naka parti nguur gi ñoom amal nañ fa seen pa ndaje El Hadji Malick Diouf naka doon responsable politique ca diwaan ba naka daal dina yëkkati ay kaddu ne daal askanu njaafaat nañu jox seen baat ki nga xamante ne moo di Roqiyatu Njaay ak naka Alioune Badara Diagne Diagne ngir ñu mën a am seenu baat ca penc uh, ci waxukaayu Cheikh Tidiane Diagne. moom mooy le directeur yow laa bëgg a waxal département Kaolack rek moom moo ci am combat te balaa ngeen a ñëw Ndiafat timis moo jot ngeen soog a dugg si Ndiafat kon bàyyi ñu ñu doxal suñ campagne nuñ ko bëggee. ànd leen nag ñun ba sëñ Cupasi soo leen ay dellu ngeen soog a dellu. gannaaw loolu bu weesoo ñoo ngi leen ay nuyu ñoo ngi leen ay gërëm ñoo ngi leen ay sant li ma bëgg a wax mooy waa askanu Ndiaffate commune u Ndiaffate mooy yàlla def na ba ñaari député yi nga xam ne moom lañ tànn ci département bi doomu Ndiaffate lañu loolu yàlla moom moo ko def jagleel ñu ko gis ngeen nag departement wu Kaolack yépp takk nañ seen ndigg sol nañ seen dàll def seen casquette def seen i pour ñëw fal ñaari député yooyu kon waa Njaafat nañoo nekk benn nit benn jëmm di xàcceendoo di doorandoo pour que au soir du 17 novembre 2024 suñu wàññee xob bi fii Njaafat ñu am 95 pour cent assemblée de rupture lañ bëgg donc fal leen Roq Ndiaye ak alin Badara Ndiaye léegi nag ñooñu ñoom ñoo ñuy taxawal assemblée nationale suñu bëggee wax yoon Touba Sanokho ba Daaru Mbiteyeen ñooñu ñoo koy défendre yoonu Walla Dex ñooñu ñoo koy défendre en ndox mi nga xam ne baaxul ci Walla Dex ñooñu ñoo koy wax suñu bëggee wax les terres salines ci ci Walla Dex ñooñu ñoo koy wax donc fal leen ñooñu ñu représenté ñu ci assemblée nationale Eh, ci campagne Pastef ba ca diwaan bu Ndiaffane nag ki nga xam ne moo di Alioune Badara Diagne nga xam ne nag bokk na eh, ci liste départementale bu Pastef ci diwaan bu Kaolack nag kaddu ya nga xam ne moom la fa yëkkati mu nga cay joxoñ daal ki nga xam ne moo di député maire bu Ndiaffate bii ne daal liggéeyu dara eh, ca diwaan boobule kàddoom ci waxukaayu Cheikh di kontaan vraiment ci accueil bi. accueil bi am na solo. damay kontaan nag vraiment ci hommage bi nga xam ne ñoo koy rendre góor gi. góor gi ku jar a rendre hommage la ku goree ngi nii fii suñu yaakaar la fii suñu njiglaay la trois élections man fekk naa trois campagnes sinon plus chaque fois buñ fi jaaree dañuy am satisfaction totale ñoo ngi nuyu bu baax mon père le doyen président Sarr merci beaucoup mon père à travers lui ñoo ngi nuyu vraiment André Sarr nekk le responsable coordinateur bu cellule Ndiaffate Séeréer dama fan lañ nekk si feefu madame Bana xam ngeen madame Bana en tout cas au soir du 17 nañ fi am 95 pour cent 95 cent d' accord ngeen loolu di ngeen ko def xam ngeen ne jafe-jafe yi bari na jafe-jafe yi métti na nekk na fi maire nekk fi député nekkaat fi maire ba léegi lan la fi defal waa Ndiaffate absolument rien suñu suuf si nga xam ne xorom si daf ko sonal salin bi nekk fii tout près suñu suuf si xorom si sonal na ko lool lan la ci def naada suñu béykat yi seen récolte yi kenn xamatul nu mu demee suñu mbokk pël yi seen nag yi amatuñu ñax ba ñu lekk bu normal ndax lan xorom bi nga xam ne sonal nañu ñaata pouvoir moom ngi fi madame le dara kon kii ba mu nekkee pouvoir defalu leen dara nekkatul pouvoir lan la leen mën a lati absolument rien bëgg naa ngeen faxas ko faxas leen ko jëlee leen ko fii kon nag dama leen di gërëm encore une fois vraiment si accueil bi nga xam ne am na solo di leen jaajëfal. Euh, Roqiyatu nag moom mooy tête de liste départementale Pastef ci Kaolack nag ca teewaayam ca campagne ba ca Ndiaffate nag mu ngay xamal askanu Ndiaffate ne jafe-jafe yi nga xam ne am nañ ko bari na lool ba tax na nag seen ëpp diwaan ba ñoo gën a sonn ci département bu Kaolack euh, kàddoom Cheikh Tidiane Diagne moo ko taataan. di leen wax ne nag ñun ñi nga xam ne nii le président Ousmane Sonko di président parti Pastef ñun la jël tànn ñu si département de Kaolack ñoo ñëwoon fii tey. ma nekk tête de bi ànd ak sama frère ba dara Diagne mais aussi ànd ak ñi nga xam ne dañ leen investir au niveau national ñu ñëwoon nag njaafat tey saafante seeg askan bi xool si ñi nga xam ne nii tey ji ñoo fi nekk di liggéey liggéey bu am solo ñu ñëw fi nag fekk fi wax dëgg yàlla coordination bi muy liggéey lu am solo ànd ak alliés yi ñu ñëw nag dëkkalaat li nga xam ne moom lañ doon def di wax ne nag yéen waa njaafat ku nekk war na mën a voter liste Pastef waaye yéen yéen a si war a yéen a a jiitu ndax yéen a ci département de Kaolack nangu seen suuf yéen la nangu seen kër jaay leen doole yóbbu leen gendarmerie mbaañ lañ ko doon def yéen la ñuy lekk seen xaalisu mairie wala ko tegu nag di wax ne def nañ fi 300 milliards seen commune bi ndax. caa dugg loolu ñëpp ko mën a seede biir commune Ndiaffate amul benn yoon boo xam ne ni defar nañ ko fi si 12 ans waa ki nga xam ne nekk na fi fukki at ak ñaar jëriñu la dara ndax bu nekkee surga la lay jëriñ dara dama ne boo nekkee njaatige jëriñoo sa askan du boo doonee surga nga leen di jëriñ kon Ndiaffate séeréer wan nañ ginnaaw ñi nga xam ne ay surga lañu ànd nañ ki nga xam ne mooy le président de la république monsieur Bassirou Diomaye Diakhar we yéene gunge politique gouvernement am te si njiital li le grand homme jiite ko monsieur Ousmane Sonko. kon nag njaafat am ngeen liggéey am ngeen sas boo xam ne yéen lañ ko sas fii dañ fi soxla une victoire écrasante dama ne njaafat 90 pour cent lañ soxla bu résultat yi incha allah rabi fii si njaafat te defe naa ne yéen jigéenu njaafat di ngeen ko joxe pare ngeen wala pareegu leen yéen waa njaafat pare ngeen. le 17 novembre incha allah rabi dina feeñ bu soobee yàlla ak yonent bi. Euh, campagne baa ngay wéy nag opposition bi tamit nag ñoom ñu ngay jukki seen i kàddu euh, coalition takku wàllu Sénégal nag ci diwaan bu Kaolack ki nga xam ne moo di maire bu Ndiaffate di Aïssatou Ndiaye mooy tedd liste bi moom itamit nag mu ngay setal deru nguur gi fi neewoon euh, teg ci itam nag di laaj baat ca penc ma kàddoom la ñu cay teewlu. maire yëpp boole ak ñeneen ñoo xam ne gëm nañ programme boobu ñu ànd doon benn mun a yóbbu Sénégal parce que tey demuñu assemblée nationale pour bloquer le pays parce que faut pas tam ñu ñuy ñoom ñoo waxoon ne doo jox pouvoir nit jox ko la majorité à l'Assemblée nationale yàlla def na nag tey loolu tey nañ leen si dimbale askan bi nañ leen si dimbale parce que équilibre lañ bëgg équilibre boobu mooy tey ñu mun a xam eurobond bii fan la dugg les 450 milliards équilibre boobu tey mooy tax ñu mun a xam parce que ñoom comme dañ ñoo sosal 10 ans kon ñu ngi sos ñu ngi diffamé ñun ñu bugg a xam ONAS Gueye nan la demee ñu bugg a xam AGER Gueye nan la demee ñu bugg a xam Dakar nan la demee ñu bugg a suñu pétrole bi fan la nekk di dugg instant yi faut ñu am une majorité à l'Assemblée nationale pas pour bloquer l'Assemblée nationale mais les questions d'intérêt national bu ñëwee ñu voté ko mais les questions yoo xam ne pour des intérêts personnels bu ñëwee taxaw kat ne lii du intérêt askan looloo tax ñu bëgg majorité à l'Assemblée nationale bëgg tam suñ kilifa diine yi nga xam ne moom la am ki leen di saaga di leen xas chaque jour mu nga nekk tey si biir palais ba ñu jox ko poste bu stratégique ñu bëgg suñ kilifa diine yooyu ñun dañ leen respecté woon à travers un programme boo xam ne ñu ngi leen di tabaxal des maisons yoo xam ne seen kër yi bu accueillir teg leen di leen teral suturaal leen te gis nañ ñoom bi ñëwee ba léegi ni ñuy def kilifa diine yi suñ kilifa diine yoo ne bëgg nañ nag parce que Sénégal boo amee stabilité tey c'est grâce à ñoom bëgg nañ ku leen wekk ñun loolu lañ bëgg majorité assemblée nationale boobu moo tax bëgg nañ tamit ñoom ñoo ñu doon sosal ne góor jigéen kat ñun dañ koo bëgg indi assemblée nationale légalisé tey ñun ñu gis ne ñoom bi ñu faloo ba léegi borom ñaari tour yaa ngi jaabante rek chaque jour nga gis ñu photo ak borom ñaari tur yi gën a garaaw si adduna bi nag ñoom ngay gis ñu ñëw Sénégal fi mu doon musuñ fee xalaat a ñëw ñu bëgg nag ñun suñu ñëwee assemblée bés bu dugalee loi ne nañ toléré ñaari tur yi ñu ne leen toléré wuñu parce que Sénégal suñu aadaat suñu cosaan dakkuur toléré ca wéyalu kàddu Aïssatou Ndiaye nag mu nga cay gën a joxoñ baaraam nguur gi te itam nag di ca xam ne daal ne nguur gi jamono ji dañoo tàmbale di xaajale askan wi rawatina itam nag diine ji kàddoom la ñu cay teewluwaat. li nga xam ne mooy cohésion sociale bi nga xam ne moo mus a am Sénégal. jullit bi ak catholique bi dëkk te duñu am benn problème doo xam ne sa kii mooy jullit ak catholique te ñu gis ne njiital gouvernement bi fu ne cohésion boobu du lu mu bëgg commencé na assemblée nationale wala loi bëgg ne cohésion sociale boobu ko bala lii dama koo bëgg a imposer pour tas dëkk bi wala pour jaxase dëkk bi ñu ne ko loolu du si dal looloo tax ñu soxla majorité à l' assemblée nationale. ñu bëgg tamit l'intégrité de notre territoire te ñu xam ne suñu territoire bi ñun Sénégal benn bopp lañ les quatorze région di Sénégal Sénégal la ñu bokk amul ku bokk fii ak ku bokk fii ku bokk fële ñu gis ne tànk yi ñu jël ñoom di fa jëm suñu intégrité territoriale mu ngi menacé ñu bëgg assemblée nationale bés bu taxawee santé ci si benn dëkk wala benn dëkk bi ñu leen déedéet ñu dañoo bëgg benn Sénégal bu doon benn looloo tax ñu soxla majorité à l'Assemblée nationale ñëw nag bugg a défendre nag Kaolack dignement défendre la population kaolackoise wax nañ ko sànq ñu continuer li nga xam ne moom mooy li fi président Macky Sall doon def inondation yi sonal nañ ñu ñu fexe rek la ko une bonne fois pour toutes enveloppe bi nga xam ne le président dégagé woon na ko ñu commencé ko promouvoir ak yépp mu yeggali ko électrification rurale yegg li nga xam ne mooy piste rurale ñu yeggali ko yokk ko bourse familiale aussi ñu fayaat ko ñi nga xam ne ñoom ñooy ñu ko soxla hôpital aussi l'hôpital de Kaolack amoon na projet bu ci président amoon ba ñu commencé see liggéey ñu bëgg loolu ñu mun ko boole ci budget li nga xam ne 2025 mun ko concrétiser bëgg tamit fii à Kaolack ni ñu tabaxee Kaffrine tey sphère ministérielle ñu tabax ko fii ba nga xam ne am sphère bu jekk bu mucc ayib bala gouvernance ak préfecture ak sous-préfecture yi ak li nga xam ne mooy service technique yi nga xam ne ñoo nekk au niveau de Kaolack bu ñu xëyee di xëy dans des conditions yu mucc loolu tey moo tax ñu soxla majorité à l'Assemblée nationale bëgg itam béykat yi gis seen bopp mooy tey marché gré à gré yi nga xam ne def nañ ko si li nga xam ne moom mooy engrais bi ñu leeral ko ba beneen yoon dootuñ ko def ndax béykat yi ñun mbéy la ñu am mbéy moomu su demee ba ñu commencé négliger ko jafe-jafe day am Euh, ca Kolda lañuy dem nag ci làngu ko politique gi nag ñi nga xam ne ñoo di mouvement euh, Kolda debout nag fësal nañu seenub dëggute euh, ci bootu nag ci gannaaw nguur gi ci parti politique bi nga xam ne moo di Pastef ngir nag nee nañu Pastef moo leen mën a jox seenub baat ca penc ma Kolda Ousmane Diack lañu fay fekk ji. comme naka lañ ko doon njoxte mouvement Kolda debout ak président am dañuy daal soutenir pour élection législative yi liste Pastef. jërëjëf xibaar bi nag ñu ngi ko daal di am gannaaw ab point de presse te moom mu jiite woon ko ci boppam kooku di Abdourahmane Baldé Doura. mbokki Sénégal liñ fi teewloo nii mooy ñun waa mouvement Kolda Debout bi ñu waxtaanee suñu biir waxtaan ak bépp kuréel bu nekk ñun ci nan la ñu taxawee ci élection législative yi suñu base bi taxaw na tem ne nañu jàppale waa Pastef les bañ cee ñu nit ñu ànd ci lool ma ko faral di waxee bu ñuy sos mbir na ma ma bokkoon ñu ko def képp kuy kolduwa képp kuy sénégalais ngir dimbali ñi nga xamante ni dañuy doog a jël nguur ñu am majorité ci assemblée mun a doxal programme bi tax sénégalais yi falle programme bi tax ñoom ñu mun a jàll au premier tour ñaax nañ leen ku nekk fàtte boppam dimbali leen ba yàlla lu muy indi taxawaay bi nag nag euh, mu ngi nuróol li nga xamante ne moom la ñuy wax euh, volte-face te bu ñu fàttalikoo ki nga xamante ne mooy ancien directeur général bu LONASE moom moo jotoon nekk lii di bras droit fii ci Fuladu euh, candidat Amadou Ba ca jamonoy présidentielle mars bi ñu weesu droit nee na moom lu mu bëgg mooy mu daal di jox majorité régime bu bees bi ngir ñi mën a taxawal seeni réforme ca assemblée nationale ñu mën jàpp ñëwub Abdourahmane balde mi nga xamante ne que am na doole bu jéggi dayo ci wàllu politique fii ci Kolda kenn laam-laamewu ko dina gën a renforcer lii di coalition bi nekk ci euh, pouvoir bi gannaaw bu ñu xoolee ñenn ci ay partisans yu yàgg yu Pastef ci euh, Kolda ñoom jamono ji ñu ngi daal di liggéey ci tasaaroo Euh, ba léegi rek dañuy desandi ci wàllub nag politique gi mbootaay yi nga xamante ne bii moom moo ëmb woylaago yi ci Sénégal nag ñoom ñoo génn di fësal nag seenub mbégte gi ñu am nag ci nguur gi ba mu leen boole euh, ci liste :fra élection :fra tànneefu député ngir nag ñu mun a am baat ca penc ma looloo tax nag ñu koy fësal te itam nag di wax ne mbégte la ñu ca am [r] Habib Sabaly moom moo nekk président mbootaay boobule la ñu ciy teewlu. ñu ngi gis ay liste yu génn lu ñu seetlu nag mooy gis nañu ci liste yi am na ay handicapés yi ñu investir ci niveau national ak ñeneen ci niveau départemental ñun nag lu ñuy def ñu maanaam di gërëm président de parti yoo xam ne tey jël nañu engagement investir ay handicapés ci seen liste en l'occurrence monsieur Ousmane Sonko ñu koy gërëm di ko sant parce que lii lu mu def nii lu rëy la parce que boo demee ba nga investir nit ay nit handicapé pour une première fois ñun lu ñu mën a rek mooy gërëm ko sant ko parce que ñun lu ñuy wax suñu ñu soxla assemblée nationale te mu nekk handicapé rek ñu loolu dañ koy sant yàlla dañ koy jëlee ñaar loxo ñu sant ko yàlla ñu gungee ko ñu sant tamit président bu ko def lu si des nag mooy lu may wax handicapé yi mooy na ñu mobiliser pour ñu xool pour ñu gungee ñooñu ñu accompagner leen ba ñu dugg assemblée nationale parce que loolu lañu war a def parce que tey bu ñu demee ba yàlla dimbale ñu ba ñu am ñëwul de lu ñu mën a def nag mooy gungee ñooñu ba ñu toogal ñu assemblée nationale pour ñu mën a jël suñu problème suñu situation ñu mun leen sàmm ci assemblée nationale dans de bonnes ngi gërëm bépp handicapé boo xam ne investir nañ ko ci liste boo xam ne tey pour élection député yi ñu ngi koy sant ñu ko gërëm. xabaar yi bitim réew. xibaaru biti réew yi Aliou Badara Diop maa ngi lay dalal maa ngi lay ziar baax a baax soxna Mariama xibaar bitim réew yi des koy door ci réew bu RDC Congo wax ci dama jollo ko nemmeeku nag M23 bi nag ca diwaan ne askan bi nga xam ne doon nañ nemmeeku nag nag ginnaaw ci réew bu RDC dem wax ci waajtaali élection législative ak locaux yi nga xamante ni jamono ñu ngi si mën a si jàpp bi nga xamante ni war nañ waajal li nga xamante élection yi ni mel ñu jàpp ko nag ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru décembre bi ñu fasen dëdmal nag ci jamono yi nga xamante ni nag réew bu tàddina mu ngi jànkonte ay jafe-jafe yu métti ñeel li nga xam wàllum inondation bi nga xamante ni nag gis nañu ni état bi nag da cee gàllu gucce lool ñu jàpp ne élection législative yi nga xam ne ko dënmal nag ak locaux yi nga xamante ni nag jàpp nañu ab jubbante lay doon ngir kat jéem a xool ne a nemee ko nag parti au bi nag moomul taxaw temm la def ngir kat relever li nga xam di défi bi wante nag ca wet ga lii di kujje gi moom taxaw bitim réew jeexale xibaari bitim réew ci juróom-ñetti soldat autrichiens yi nga xamante ni nag jamono ni na dayo la ak fitna joo xamante ni nag mu ngi wéy boo xamante ni nag jot nañ ko def ginnaaw saytu bi nga xam ne jot nañ ko ñemeekoon nag euh, amee ay gaañ-gaañ yu métti ca frontière ba nag li na mën si jàppe na moo di ay cong yoo xamante ni jot na am ci diggante boobulee ñu jàppe ne fitna yi nga xamante ni réew Israël mu di ko teg nag réew yooyu lee mu ngi wéy di am ñu jàpp ne nag waxtu bi ñu toll loolu leen doon loo xamante ni nag xeex la boo xamante ni ñëpp nag daañu ci dugal seen loxo ngir kat ñu mën a wér ngàndaay yi xabaar yi bitim réew sant la gërëm la bu baax a baax euh, soxna Mariama fii la ñam ci xibaar bitim réew yi yàlla mi borom jàmm te ku mu jàmmal nga jàmm yàlla ñu may jàmm jaa ngeen jëf tàggat yaram xibaaru tàggat yaram yi Serigne Moussa Kane maa ngi lay nuyu. Mariama Ba maa ngi lay fay te nuyu mbokk auditeurs yi ñaanal leen jàmm di ko sàkku ci ñoom xibaaru tàggat yaram yi dañu koy doore ak euh, football qualification CAN 2025 jongante bi ñu jàppoon fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre di bésu élection législative yi fii ci Sénégal fédération sénégalaise bu football nag dafa laajoon waa CAF ngir ñu daaxandi jongante boobu ndax bésu wati la fii ci euh, Sénégal CAF nag daal di mujj li ni Sénégal Burundi yóbbu nañu ko talaata fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru novembre ci stade Maître Abdoulaye Wade bu juróom-ñaari waxtu jotee ñu fàttali na nag Sénégal Burundi dafa jëm ci euh, ñaareelu euh, bëccëg éliminatoire CAN 2025 bi nga xamante ni dañu ko reprogrammé ci kaw loolu nag dañuy déglu ki nga xamante ni moom mooy euh, Abdoulaye Sow vice-président bu fédération sénégalaise bu football mu ñëwaat ci li tàmbali nañ ko finalement match bi sax du Côte d'Ivoire mais Bamako la Bamako mais beneen match bi nga xam ne ñu war a Burundi ñu waxtaan ak CAF parce que ñoom nañu le novembre novembre nag muy jour élection au Sénégal ah jour élection doo mën a mobiliser service d'ordre bi doo mën a mobiliser même mais fédération sénégalaise de football saisir na CAF pour informer ko cette situation et yaakaar naa ne réajusté wu mais ñu ngi préparation bi ak kon kaddu ki nga xam te ne moom mooy euh, Abdoulaye Seydou Sow di euh, vice-président ca fédération sénégalaise bu football ñu waxtaanee football ca bitim réew ak seizième de finale coupe d'Allemagne tey bu juróom-ñaari waxtu jotee ba teg ngeen fukki simili ak juróom Mainz mooy dalal waa Bayern Munich Belfred di laale ak euh, Union Berlin Hoffenheim di laale ak Nuremberg Hertha di laale ak Edenheim Fribourg di laale ak Hamburg Hertha Francfort di laale ak Mönchengladbach bu euh, juróomi waxtu jotee ca Angleterre daañu amal ñeenteelu wërngal League Cup Brighton mooy laale ak euh, Liverpool bu juróom-ñaari waxtu jotee ba teg fanweeri simili Newcastle Newcastle dina lekk Chelsea ci boobu lay waxtu Man United dina lekk Leicester Preston dina lekk Arsenal Aston Villa dina lekk Crystal Palace Tottenham dina lekk ak Man City bu juróom-ñetti waxtu jotee ba teg fukki simili ak juróom. ca Italie fukkeelu bëccëg bi ci calcio bi wéye ligi Empoli day dalal Inter Milan bu juróomi waxtu jotee ba teg fanweeri simili Venise di laaleeg ak Udinese Atalanta Bergame di laaleeg Monza Juventus Turin di laale ak Parme bu juróom-ñaari waxtu jotee ba teg ñeent fukki simili ak juróom ma ngoog a baax li ma gënoon a fës ci xibaaru tàggat yaram yi jaa ngeen jëf. ci yéene yi lii ci yéenekaay ñu ànd ci ak Seydina Omar Cissé. Ah. ahalaan bikum askanu Tambacounda fa ñoo xaj seeni nokkin ndax tey la ñuy xàttee Bougane Gueye Dany la Dakar waay yéen a kaay moo ñu ko xamal léegi ko yéen a kaay na ngir bañ nag fitna moo tax fi mu toll ni Tamba takk der yaa ngi fa fes del fañ koy sirwaye saytu kaaraanga askan wa turbine yéen a kaay ne Tambacounda kay fañ koo bari barricade rawatina tribunal ba fa ñoo yokk kaaraanga ga hôtel ya nekk ca diiwaan ba fa fees del ak ay gan ñëw ngir fekkee si atte sa bopp yi farandooru association ak ay avocat yu bëri ngir layal Bougane jàppale ko bokk na te maître El Hadj Diouf maître Amadou Sall ak maître Laaji Ba bu Tamba wal fajiri yéen a kaay na njiital groupe wal fajiri muy Cheikh Niass moom it fa demoon Tamba seeti ji Bougane ca kaso ga fa sàkku ngir ñu bàyyi Bougane la dépêche yéen a na ko hee man nag faa foog na bugaan duñ ko bàyyi tey de fa nar a toogaat ca kaso ga lu mat benn ay bés maanaam atte tey bi daal faa jàpp na fañ koy dàq su ko defee atte ke de joxe verdict ba muy dogalu atte ba avocat yi bugaan gay dan mel ni kuraan ko ah ah ñun nag loolu la ñu bañ a dégg bugguñ kenn ku fi renvoyé ak a dàq atte bi tey nañ atte lépp mu jeex ñu bàyyi bugaan mu ñibbi ña ngi ko waxee ci les si ko yéen a kaay le mandat yéen kaay mel ni kuraan leen faa foog na nag li ngeen bëgg noonu du xam de bugaan fa xam ñoo xam ne fa ñoo na daal atte bi fañ koy dàq de l'observateur ne fa xam ay risque nag yoo xam ne mën naa dal ci kaw bugaan ci atte tey bi Sud Quotidien ne tey daal mooy bésu dëgg bi pour Bougane ci gàttal fay leer ndax fañ koy xàttee flagrant délit kon mën nañ ko bañ a dàq source a yéen na leen ñaar rek moo mën a xam tey xàtte ka de fa ñuy joxe verdict bi dogalu xàtte bi wala boog fañ koy dàq ba bés bi del siwaat ñu def li ñuy wax délibéré farandooru Bougane nag fa ñoo nekk ci ak njàqare ak jaaxle démb nag fa xam ay sénégalais yoo xam ne fa ñoo demoon ca daluwaayu amnistie ba nekk lala léegi ca kaso ga yaaw seetal ginnaaw bu mu doon dawal xotoom fël benn xale bu góor te xamutoon permi léegi permis jàmbur boobu mu jëloon ñu defal ko ca attestation borom permi ba fa porte plainte amendooy léegi xam nañ ko moom permis ba waaye police takk der bi nga xam ne fa ko bindaloon këyit boobu ci anam bu jaarut yoon police bu moom it jàpp nañ ko tey lañ koy defeere fañ koy teg ay daan léegi nag amendooy nag ci boppam moom daan dañ ko war a teg alxames lañ koy xam libération moo jox xibaar bi yeneen xibaar yu fës tey ci yéen kaay yi mooy xibaaru campagne bi rek seetal Amadou Ba ma nga woon ca diwaanu Tëngéej Pout jàll Thiès Ngunjaan moom fa ko wàccee fa mbay jonn fekk baax fa faa yëkkati kàddu nag moom Amadou Ba na léegi nag fa jot sénégalais njuumte bi ñu defoon ci weeru mars 2024 te mooy fal Jomaay ak Sonko njuumte boobu fa jot ci wote député yi ngir ñu jubbanti seen njuumte bi maanaam bañ leen a woteel GP yéene kaay na Amadou Ba kay mitin bu mag la def ca Ngunjaan fa dig timit na fay delloo si yaakaaru askan wi nga xam ne a a wax continuer di wax ba yàqaar réew mi fu ñu la séen rek yaa ngi wax rek ñun sonn nañ ci sa wax ji yoroor yéen a kaay mel ni kuraan ka fa mel ni nag sénégalais yi ña ca gën bëri ñoom sonnuñ ci wax Ousmane Sonko ji ah koo xam ne campagne bi dëkk bu dem mbooloo ma riir fa koy topp ay ah yow fa ngay xool Sonko ma nga woon ci diwaanu Fatick fa ko wàccee mbooloo ma fa bëri ba jéggi dayoo kaarang nag yéet téet téet ndiiraan mbooloo moo xam ne fa ngay xool ba fa bët yem daw topp xoto ya fees del naka noonu diwaanu Passy waaye ca diwaanu Fatick bi a suqalee réew mi diwaanu Fatick réew mi yéene kaay na Sonko kay dëkk Macky Sall fa la dem rajaxe ko toj ko dëbb ko ba mokk ci mbooloo mu bëri ba pare fa leen a dikk ne fañ fay def ab usine boo xam ne fay def wàllu jëm ci xorom ak dugub le républicain yéene kaay na leen ngir yàlla bu leen fàttee diwaanu Kaarang ak Passy démb mbooloo ma teeru Ousmane Sonko topp ko ci oto yow fa ngay sax lii montage la du dëgg bayra cofeel bi nit ñi xam ci moom fa jéggi demee fi mu toll nii Ousmane Sonko mooy phénomène bi maanaam dëkk bu mu dem mbooloo ma kenn mënu koo fa ngay jommi Barthélemy Diaz moom kenn xàmmeewut ko Amadou Ba moom ay mbiram fa sedd turbine yéen a kaay na ko Barthélemy Diaz moom ngay wax xam nga moom fi ci lu mu nekkam kilifa diine yi fa dem di jéebaane Sonko Jomaay nguur gu bees ci niñ téye Bougane Gueye Dany ak fitna ji am ci wote yi source aana Barthélemy Diaz kay Monseigneur Benjamin Ndiaye fa koo dalal Thierno Madani a yéen ndax loolu xel fa ko nanguwut fa bëri torop waaye li ñuy sàkku ci moom Ousmane Sonko na leeral tooxi doona bi am ci gaz bu yaakaar ak teraanga na ko leeral ak transhumance yi nga xam ne fa ñoo waxoon am te léegi gars ngay dem di fekki Pastef rek kon la woon wan nekkuut exclusif yéen kaay ne maire yi nga xam ne fañ leen a faloon te ñu bokk APR fa ñoo def li ñuy wax mbëkk politique maanaam presque ñoom ñëpp fa ñoo transhumé dem ca Pastef moo xam Alioune Sarr ak Ibrahima Baba Sall ak yeneen yi ni mel yéen a bi ne li ñu def noonu wóorut de ay risque la ki ay kàddoom nekkoon ay risque Abbas Fall bi xoowoon militant parce que ñu àndi ay ngàndaay ngir fayu point ak ti yéen a kaay fa xëy di laajte ne jëwriñ ji dénk wàllu yoon ndax dana dem ci ay mbiram ba jeex te li mu waxoon nag Aliou Dembourou sa waxoon na ko fi jamonoy Macky te dara fekkut ko ci wàllu yoon nag Abbas Fall nag nee na man jotuma benn convocation oolu wuñ ma ci yoon maa ngi nii di wéyal sama campagne lii dëgg nag mooy ne Macky Sall moom ma ngay campagne waaye ñëwul Sénégal de ci WhatsApp bi la ko jàpp xoote appel vidéo di wax ay militant di dégg dikk bi ko gars yi laajee nag président kañ nga ñëw Sénégal ci campagne bi fale na wax ne hey sama dikkaat ak Sénégal loolu du waxu tey saa bu ma jëlee dogal ngir ñëw Sénégal faa koy waxal sama bopp ma ko waxee ca fag su populi antenne yéen a na ko kon koy waxal wax ji rek Macky yow moom dootoo ñëwati Sénégal ci campagne bi fa caa yokku leeral moom Macky Sall ca le quotidien ne am na ñoo xam ne faa dégg ñuy wax naan man faa def dil ak Ousmane Sonko faaw nga ñëwaat Sénégal ñu jox la li ñuy wax ordonnance ab këyit buy tax nga wote te boo ñëw doo ko am ndax yow Fatick nga doon wote wote député yi nag ñi nga xam ne ñooy woy laago yi handicapé yi ñu bëri si ñoom fa ñoo nar a nekk ay député te su boobaa fa ñuy am assemblée nationale boo xam ne woy laago yi fañ caa am seen cër bokk ca te loolu moo jaadu ndax ci askan lañ bokk enquête yéen a kaay moo xëy amal seetlu bi ne liste yu bëri ay handicapé bu rafet taxawaay bu mat kilifa bi président Diomaye fa l'observateur ne fa am soxna yoo xam ne fa ñoo xamoon jëkkër seen jëkkër ya toroxal leen seen jëkkër ya trahir leen war métital leen def leen jëf ju ñaaw joo xam ne fa tax soxna yooyu fi mu toll nii fa ñoo jël dogal ne ñoom dootuñ amati jëkkër fa ñuy dund ba dee nekk célibataire yéene kaay bi ne loolu nag fa bari léegi góom-góomu xol la ñuy xam waa ma ne xam nga am na yenn góor yoo xam ne jaruñoo may sax jabar te fa ñuy fàtte ne jigéen moo leen jur jabar nga dem ba gis ci moom loo xam ne neexul te mënoo koo soppi fase ko ndànk waaye di ko toroxal loolu góor gu du ko def waaye góor ko def jigéen fa nga koy gis jafe-jafe rek ci ngay nekk waaye yéen jigéen ñi tamit loolu warta tax ngeen ne dootu leen amati jëkkër déedéet ndax su ngeen bañ a am jëkkër dem di foddi caaxaan loolu baaxut te nag am na góor ñu baax ñaanal yàlla mi ci jàmm ku may jàmm nga am jàmm yàlla yàlla may jàmm fu ñu toog di dégg jàmm di gis jàmm mbokk cant ak gërëm ñeen na leen woy leen di ànd ak programme yu am solo yu Alfayda FM jër ngeen jëf. yi ak Mariama